Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum sama gars maa ngi leen di ziar yéen ñëpp man la seen frère Sora le révolutionnaire maa ñëwaat ak yéen ci benn live bu gàtt rek ñu waxtaanee actualité wu réew mi mais tey nag dañ ciy jël ñaari sujet rek ba ñett texte bi nga xam ni Madiambal Diagne moom la bind muy texte boo xam ni dafa fees tell ak ay sos tex boo xam ni ay kàcc kese moo nekk ci biir muy tex boo xam ni lu ñu mën a ñaawlu la parce que boo ko xoolee ñoom dañoo nekk ci benn logique sama Madiambal Diagne dafa ñëw pour jàppale leen ci seen logique boobu parce que liñ xale yi liñ naan mag du fecc ci yàlla naa dee am na ay journaliste yoo xam ne heure bu leen gisee ñu bind seen article moo xam dañ koy bind ci seen journal wala ñu bind ko ci seen page Facebook rek xam leen ne ñoom dañoo jot ay ordre yu tax ñu bind ko xam leen ne ñoom li ñuy bind teg nañ ko fu wóor kon ma jëmbal Diagne tey bu xëyee bind lii tey ci suba ñun ñëpp ñu gis ko muy benn texte boo xam ni si ay ay ay kàcc kese la ñépp xam nañ ne ay sos kese la ci ay wax yu ñaaw ci ay wax yu tegg newul ci ay wax yoo xam ne mën na taalum réew defu ko ci yàlla naa dee defu ko tamit tegu ko ci xam-xam daa am ci lim ko teg mooy moom il est parce que ma Madiambal Diagne ak xeetu journaliste yu mel ni ñoom nga xam ne ñun ñëpp xam nañ leen léegi détecté nañ leen heure boo leen gisee état buy préparé benn affaire rek si ñoom lay seen seen ay journal ñoom ñoo koy jël jàllale ko si seen ay journal bu ko defee ñeneen ñi buñ ci jotee naan pourtant journal nangam jàllale woon na moo tax mu bind texte bu bu salte bu ñaaw bi nga xam ni ñëpp dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu parce que mën a mën a yàq der ak mën a kàcc ak ak ak ñeme yàlla weesul ma jàmbal jaañ taxaw di wax ay wax yoo xam ni ñun sax rus nañ see jaaraat te et am respect rek si ñuy seetaan tax na duñ ci sax jéem a jaaraat parce que yaakaar naa ñun ñëpp liir nañ ko mu doon loo xam dañ koy méttilu du ko ñaawlu parce que genre propos yooyu noonu moom la le ministre de la justice pro moom la le ministre de la justice def. barki démboom bi mu demee maatam ba nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko doon ñaawtu ba démb gis ngeen live bi ma ci def ñun ñëpp ñu koy ñaxtu moom la le le ministre de l' def moom la ki nga xam ne mooy ministre de de l' étranger def ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si nguur gi ñu bëri genre discours boobu lañu am te discours boobu discours bu yeewaat xeex la discours boobu discours bu yee fitna la te ñoom instant yi dañoo war a toog jéem a apaiser dëkk bi ñun nag xam nañ ñoom liñ bëgg parce que ñoom ñëpp ñu ngi jéem a wax ay force occulte ay nangam ay sàngam ñu leen di wax ne ñun loolu tiitaluñu te jaaxaluñu te xam nañ seen plan ñoom li ñu nar mooy xajamal dëkk bi pour après ñu ne ñoom ñoo mën a indi ay solution pour du ñu def ay élection yu jaar yoon pour élection du am démocratie dootul am ci réew mi pour Macky Sall bën see jaarante victimisé wu daan ne dañ ma doon coup d'état wala mu ne terrorisme dafa am ci dëkk bi nit ñi toog ci seen kër ñuy tërule seen programme nu mu leen neexee ñu leen wax ni ça ne se passera pas te duñ leen bàyyi ngeen jàllale loolu ñu ngi leen di gis léegi yamatu leen ci ay discours léegi yamatu leen ci loolu mais yéen a ngi koy jàllale ci journal yi ak yenn soi-disant intellectuels yi buñ toogee ci plateau de télévision yi naan wii peut-être am na ñu ñu raxoon dañoo am pétrole dañoo am gaz dëkk bi jàmm moo fi war a am jàmm ji encore une autre fois comme ni ma koy waxee jàmm doo gis. ñun lu ñu teg yomb na bàyyi leen toutes les prisonniers politiques ñu di ñoom dellu si suñu ay acti activité dem liggéey dellu si lu ñu nekkoon c'est ça c'est simple léegi du ñu yàgg sax ci point boobu noonu damay ñëw si benn si benn si benn sujet boo xam ne temps yëpp dama koy dama koy gis ñu koy traité dans les médias mooy certains dañ naan Ousmane Sonko day woote anti système ba pare te moom ci biir système bi la bokk alors que moom loolu sax waxatuñ ko mais dañ naan maanaam tournée yi muy def instant bii nii ci biir système bi la parce que mu ngi dem di seet ñu bokk ci biir système bi mais loolu la plupart ñi koy wax mooy ñi nga xam ni ñoom dañoo jaloux parce que gis nañ ni waa ji mu ngi def une tournée boo xam ne ñun ñu ngi doon waajal suñu nemmeeku tour far ñoom ñu ñëw yombalal ñu ko le président Ousmane Sonko saisir occasion bi di def tournée boo xam ne mu ngi rassembler toutes les forces ko bàyyee mu continuer si loolu day am benn longueur devant devance ak ñoom ñu ne léegi nan lañ ko war a mën a yàqee moo tax ñuy nekk di tardé wu si détails yu ndaw yooyu man nag lu may wax mooy gars yi bu leen kenn nekk di tardé si détails ay kii ñi muy dem seeti ci système bi lañu bokk système du question de personne maanaam du nit ñi la ñuy jël ni nit kii baax na nit ñi baaxul loolu gàtt xel foofu la mën a yem. gàtt xel foofu la mën a yem naan kii ci système bi la bokkoon Ousmane Sonko warta wax ak moom fii Sénégal. ñooñu di wax ñëpp naan warul dem seet ñi bokk système bi parce que ñoom dañoo am seen yeneen leader te Sénégal amul ma dem te ñoo benn parti unique mënu fee jël nguur. parti unique mënu fee jël nguur kon Ousmane Sonko li muy def essence mooy li ko war parce que moom mooy le le chef de l'opposition moom mooy benn opposant bi nga xam ne il est mooy benn opposant bi nga xam ne taxaw na jommal le président Macky Sall léegi il temps mu rassembler toutes les forces forces toutes les forces vives nag lañ wax amul kii amul kële ñun loolu la ñuy xaar si moom mu rassembler ñëpp ñu ñëw nekk si am ñu ànd xeex ak la président Macky Sall jëlee ko fi parce que Macky du koo xam ne ay élections yu démocrate moo ko fi jëlee Macky du loo xam ne tu nit koo xam ne mbirum démocratie moo koy jëlee si réew mi lenn rek moo ko fi mën a jëlee te rapport de force lay doon. kon rapport de force boobu noonu parti Pastef kese mënu koo def li ko mën a def mooy sénégalais yëpp mu boole leen en masse boobu ñuy xeex ñu génn taxaw xeexal suñu bopp ñun ñëpp génnandoo taxawandoo xaajaloo arrangé wuñu booloo moo ñu arrangé moo tax Ousmane Sonko loolu muy def ñun ñëpp nañ ko si encouragé ñun ñëpp dañ ko si gën a félicité bañ a nekk di topp ñi nga xam ne dañ naan wii mu demoon na seeti Ahmed Khalifa Niass demoon na seeti kiiw demoon na seeti diw loolu c'est pour ñun nekk parce que boo xoolee même yonent bi bi nga xam ne moom mooy yonent yàlla yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba mu demee ba màkk ba mu demee ba dugg si yahud yi dafa dafa signante ak ñoom ay ay pacte pour mën a nekk ak ñoom si jàmm ba am doole loolu nekkul ni nguur daa am nuñ koy nuñ nuñ ciy jotee loolu réalité Sénégal la réalité feneen la discours bi changé wul pertinence bi changé wul la preuve xoolal Ousmane bi mu toogee ci ay kanam ñoom Ahmed Khalifa Niass discours yi mu doon def discours yu yu am solo xoolal bi mu demee keroog TFM j'ai vu même sans benn waaye man moom dañ ci xuloo ba sonn mu ne Ousmane Sonko warul woon te dem TFM ndax nangam ndax sangam waa TFM du ñu ñëw si ay conférence de presse am ma ne ko non non non ñun ñëpp mënuñoo yem lu ñuy def parce que équipe boo gis dix lay doon ak gardien ku nekk daa am rôle booy jouer si biir terrain te Ousmane Sonko moom li ko war mooy képp koo xam ne soxla na la pour si combat bi mu dem seeti la waxtaan ak yow ñun lu ñu war mooy bu combat bi laajee génn si mbedd bi ñu génn si mbedd bi bokkuñu ay position et puis discours bi mu fa tenir discours boobu kese la mënoon def mooy taxaw ni mankat maa ngi naqarlu lii maa ngi naqarlu lii ak lii ak lii ak lii teewul ñun dinañ xam li ñu war a def te teewul ñun li ñu defoon keroog TFM wala ñun lu ñu defoon keroog RFM wala lu ñu defoon feneen feneen ak feneen ak parce que am nañ si benn ak la TFM par la force que dañ bu manifestation doon amaat ni ñu si doxalee bii passé nii duñ ko si doxalee waat kon loolu ñun am nañ ci liñ ci bëggoon liñ si bëggoon mooy sénégalais nekk ci ay naxar ñoom ñuy tegal ay firi ngénte ay musique ay affaire yu ñàkk fayda bañ leen sanctionné nag wan leen ñi leen yéen sanctionné nañ leen te yéen yéen liggéey lu tax ñu sanctionné leen ils ont revié à la raison ils ont revenu à la raison moo tax ñu continuer mujj gi ñuy teg manifestation yi te loolu c' est pour tout le monde et c' est valable pour tout le monde moo tax il ne faut pas que ñuy nangu ñun di tardé wu moo tax man débat boobu sax bëgguma ci yoon wax parce que dama ko gis lu bëri ñu koy defaat si dans les réseaux sociaux moo tax ma participé ci moo tax même keroog bu mu demee kër Ahmed Khalifa ne jour boobu nga xam débat bi dafa yëndu woon dans les réseaux sociaux man damaa ma noppi ci parce que man je que man en li ma yaakaar mooy débat boobu noonu warta jël suñu temps mais nag. dama leen di gën a wax que ni soyons te xam ne gars yi ñu ngi tegaat beneen plan ñu ngi tegaat beneen plan bàyyeeguñu Macky à reculer pour mieux sauter te heureusement que amuñu ñun leaderu cuune am nañ leader boo xam ni euh, sama làmmiñ ak sama làmminu moroom cet maanaam laaw la cet mënuñ koo ñoom te xel fépp fu ñu foog ni mën nañ faa jaar pour teg ko xel balaa ñu fa yegg moom mu defar leen benn contre attaque parce que depuis barke wax na def na déclaration ni carrément gars yi terroriste lañ ko bëgg a jiiñ kon gars yi dinañ xaw a ralentir léegi ñun soyons vigilants ñu xool fépp foo xam ne ñoom ñu ngi fay gën a jaar ñu ngi koy jéem a jaar pour jàllale lool comme nañu ko defee woon si yeneen kii parce que ñoom ñëpp ñu ngi koy commencé bu ngeen nee ba gis ma jambal jaan texte bi mu bind tey ministre de la justice bi def genre texte yooyu fële ca Matam ministre de l' intérieur bi nga xam ne moom moo yor kaaraange gi def loolu benn capitaine bu yambar boo xam ne dafa mujjee daw armee def genre yooyu noonu ak ñeneen ñeneen ak ñeneen def yooyu noonu nga xam ne loolu ñoom lu ñu déggoo la te teg nañ ko fu lu fu leer avant ñu koy wax nekk ñu nii rek di wax ci àll bi lu ñu déggoo la teg ko fu leer pour nag jéem a yàq deru président Ousmane Sonko parce que xam na ñi projet bi Ousmane Sonko di porter encore une autre fois ñoom bis bu Ousmane Sonko tegee loxoom ci nguur gi ñoom ñëpp dañuy yàqule te il vont tout faire pour fexe ba moom du teg du du teg loxoom ci nguur gi ñun nag notre responsabilité mooy ñoom lu mu leen jaral pour ni Ousmane Sonko du jot ci nguur gi ñun nañu ko jaral à deux cent pour cent pour ce que ni imposé leen ni par la force day jot ci nguur gi day ñëw transformer pays bi loolu mooy li nga war a def ñun. te ñu soyons vigilants ñu xool leen ñoom fépp fu ñu mën a jaar pour prox ndoll pour dugal seen manipulation yooyu noonu ci askan ñu dem fa yàq ko demante leen benn par benn ba mu set jaayeen jëf sama gars yi c'était juste un petit live merci beaucoup à vous tous jaayeen jëf la cloche pour ne rater aucune de